28 heures tey moo tax dama kontaan xam nga tax ma kontaan ndeysaan fu ma tourné damay gis xale yi wàcc Seydina Limaamu maanaam sama xol moo sedd eh, ñoxor et puis dimbali ma ci fii téel fii maa ngi leen di fal eh, eh, écoutez déglu leen noppi leen noppi leen maa ngi lay aji ak yow bu la nga wax ma aji maat ndax bëgg naa aji bëgg naa aji kay bëgg naa dégg aji kay waaw waaw incha allah ñu ngi lay donc avant tout maa ngi sant yàlla bu baax a baax bi nu yàlla mayee ñu fekkewaat bés bi wax dëgg neex yàlla euh, di julli ci yonent bi moom Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wasalaam di kontaan bu baax a baax 48 heures la ñu wax tey euh, euh, boo xoolee tànn béer gi ni mu def xam ne xale yi rek fi ne parce que man wax dëgg neex yàlla comme ni ma koy waxalee euh, dama bëgg xale kon donc li ma cëral xale yi moo tax ñoom ñu ñaan ma tey bés bi ma àndi ak ñoom bés bi may leen tànn biir bu ñu nee 48 heures nag dama ci ànd ak Demba Gissé ñu nar a amal suba live bu am solo fii ci rond-point bi ak El Hadj Keita ak tax Mbaye ak Dieyla incha allah avec tous les artistes ah euh, tey wax dëgg neex yàlla ñu bëri bëggoon nañu teew waaye ku ne xam na ne tey euh, music award bi nga xamante ne man day maat dama ci bokk. xalaatoo euh, maa ngi doon xalaat sax gars yi ñëw dab ma léegi jox ma torofe bi. am na nu muy demee ma coupé fii léegi léegi léegi léegi. daal di dem fekki leen incha allahu rabbi ñu daal di koy waxtaane di kontaan bu baax a baax et puis di sant di gërëm sama yaay. di leen di ko ñaanal suñu borom yàggal ko li yëpp fan di sant euh, képp koo xam ne tey jàppale na Ndeye Made ba mu yegg si fii ku ci mel ni Youssou Ndaw maa ngi koy nuyu ah ku ci mel ni tonton Cheikh Ndiaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax chéri chéri chéri Ngone Diop madame Ndiaye moom itam maa ngi koy nuyu jàpp na ci guddi gi wax dëgg neex yàlla euh, di leen kontaane bu baax a baax rawatina nag honorable député ba Ngom wax dëgg neex yàlla euh, Euh, Farba xaw ma sax lu ma koy waxati wax dëgg neex yàlla di ko ñaanal yàlla rek sunu borom bàyyi ko fi yàlla yàggal ko yàlla gën ko bàyyi ak président Macky Sall gën ko bàyyi Fouta ak Agnam tubaarkàll ak ni ko sunu borom def di nuyu bu baax a baax Demba Ngom moom itamit jàpp na ci affaire bu baax a baax Demba mention spéciale à mais mes respects di kontaan ci képp koo xam ne rek tey wax dëgg neex yàlla jàpp nga ci bés bi ba mu mën a yemb ba taxaw encore une fois merci beaucoup soppe yi xarit am di jàmm aw ma seen fay yàlla na ma leen yàlla fayal wax dëgg neex yàlla encore une fois merci beaucoup Yoff. alors 48 euh, heures yi nga xamante ne def nga ko mu am si ak ay artistes lan moo tax nga toog sa choix si artistes yooyu gis nañ ne Demba Guissé Dieyla. waaw xam nga ñooñu samay euh, maanaam samay xarit lañu euh, tey bés bi Viviane mooy marraine bi 48 heures yi. Viviane nañu def euh, manaam marraine lu 48 heures bi xam naa moom itamit suba incha allah rabbi euh, dina ñëw ci euh, concert bi incha allah avec d'autres artistes yoo xamante ne dinañu leen xaar muy ay artistes surprise yoo xamante ne incha allah rabbi dinañu leen xaar ah kon 48 heures yi ni mu demee. ba ma dem ci ak artistes yi nga xamante ne ñoom laa ci àndal samay xarit lañu dañu wax dëgg neex dañu ma yéene ma yéene leen dëgg neex yàlla ñoom itam ñu man lu ñuy def ñëw fekk se Ndeye Made ku ma ci woo mu ne ma Ndeye Made pare nañu pour liggéey ak yow wax dëgg neex yàlla maa ngi leen di félicité bu baax a baax ku ci mel ni El Hadj Keita doom Medina boobu wax dëgg neex yàlla Tarba dem ba Gissé moom dama ko defal mention spéciale ndax dem ba moom euh, ba nu ko woowee ne dañu bëgg tëgg temps daal ba nu si waxtaanee euh, wax dëgg neex yàlla yombal na mbir mi kon merci beaucoup mention spéciale à Demba Guissé. nga doon xaritu yow fii tay dafa waroon wàcc xam nga li tax fii wàcciwul ba zéro. trophée uh-huh. uh, uh, award yi ñu war a joxe musique award. Mm-hmm. moo tax tey fii wàcciwul. mais fii tey nga doon gis ba gis jinne mm-hmm. waaye suba tubaarkàlla di nga gis lu mel ni xeme. barke yonente bi loolu sama bés la xam nga bii booy yee ko moom dama leen ko jox waaye suba bésu nday màdd la waaw nanu xaar sax Wally Seck ku ne mën naa ñëw. ku ne ku ne nanu xaar Wally Seck ci bés bi incha allah rabbi lii dama bëgg ngeen dugal ko léegi léegi incha allah rabbi dëgg neexul du dëgg. waaw. am na solo macha allah ngeen bëgg laajaat. ndax mën nañu ko remercier kay mu dem mais tamit nday ma dégg ñu dikkaale ci sa diggante ak waa yow parce que tey gis nañ ni la xale yu wëree mu mel ni que nag jox nañ la bopp boo ñu doon dikkaale sa diggante ñi nga xam ne ñoom nga dëkkal wax dëgg neex yàlla xale yi xale yi ñoom ñoom dañuy jooy sax wax dëgg neex yàlla Euh, dama kontaan nee naa la ñoom ci ñi ma gën a poussé ma def li ci la bokk kon euh, taman xale moo ma feeñal kon bu ma xale yi jiitalee pare guma de xam nga damay doog a doon nag te tubaarkal dama ko wax nee naa leen c'est mois la lionne de 18 heures dëgg neexul tubaarkal kii fëgg la rek entrée bi lu ne la ki damay fëgg rek. dara xewul. bi moo nekk sa première édition non damay fëgg bi bi première édition bi la suba nee naa leen jinne dañu ko gis. incha allah xam naa ne Sidi mosu leen gis jinne. <laughs> waaye suba ngeen gis jinne. waaw leen lu ne xaar lu ne. waaw xaar leen lu ne. Euh, lii ma sol nag tubaarkàlla xam naa war ngeen ma cee laaj de. waaw léegi moom li nga xam moom li nga sàjj daa rëy. lii lii sama yaay ji tubaarkàlla ngóone ngóone laay borom Dubaay moo jënd or yu bari yëpp. tubaarkàlla tëralee ma ko. Mm-hmm. ne ma nu valeur bi toy baax na yaay sama doom waaye ànd nag ak may mam si fashion moom itam mu defal ma commande bi jëlee ko Dubaay ne ma comme nag macha allah da ngay da sargal say fans fokk tubaarkàlla ñu bégal la mu dem def commande yére bi mu andi ma kon maa Diop maa ngi lay nuyu